waaw kii si 137 appel bi lañ la doon laaj nan ngeen ko dundee fii. waaw alhamdulilah rabil alamin appel bi ni ñu ko dundee maanaam fas yéene euh, topp jaar-jaaru Seydina limon mi nga xamante ni moo woote fii ci saw jant na mooy Mahdil Muntazar moom mooy Seydina Muhammad bu yàlla delloo si si jamono ngir mu mottali mission wu Mahdi al Mahdi yu loolu moom la ñuy màggal tey cent trent septième anniversaire am fii ci Ngor Ngor nag histoire am dafa rëy parce que Seydina mu dafa wax ni bi mu nekkee Mouhamad Rasulullah demb bi mu génnee àdduna deful ci bàmmeelam lu ëpp ñetti fan bi mu jéegoo nag fii la ko yàlla teg fii la làqu woon leer gi fii la di wër guddi gu nekk di wër ci ban xeet la war a judduwaat ba yàlla wërsëgal gi mu war a judduwaat ci xeetu lebu juddu ci màgg ci ba woote ci ne aji boo daa yàllaahi Muhammadu ma doon nelaw yeewu na loolu moom mooy sababu ñu ñëw fii ci Ngor di màggal woote Seydina Limaamu Laay ci sow jant loolu moom mooy moom mooy sababu ñu ñëw fii ci Ngor ngir xàncu ci leer yi. édition ren bi ak édition yi fi jot a jàll lan. macha allah émission édition ren bi boo xoolee appel bi dafay gën di màgg ndax ñun bitim réew la ñu ne waaye bu jotee dañuy bàyyi sunu lépp ngir ñëw màggal woote Seydina Limaamu boobu wuy si woote bi yaakaar naa ni ko xool mbooloo bi nga xam ni mbooloo laay yokku na alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xamante ni euh, ñaan nañ ko fi euh, yàlla na ko yàlla nangu mu doon xéewal ci réew mi yëpp doon xéewal ci jullit ñëpp doon xéewal ci àdduna bi yëpp. bi dafa doon dafa doon faram li nga xamante ni moom mooy njàngale Seydina Limaamu parce que Seydina Limaamu bi mu ne ajiboo daayalaay dafa woo nit ñi ba nu ñëw mu daan leen di joxoñ ay joxoñ jàngal leen itam ni ñu war a dundee parce que moom dafa war a ñëw feesal dafa am mission mission mooy feesal àdduna njub ak maandute kon dafa may ay yu am solo yo xamanteni mom la doon faram faccé légui ci manam bo xolé ci limu ëpp ak limu gëna a mom moy jigen ñi nañ leen maye ci bi tal ñu xam ñi dañu am ay borom kër kon du dugg ci affaireu tiaxan du nekk aussi ci ci lo xamanteni neexul suñu borom. rek tay mu ngi jëm kanam rek appel ba ngi jëm kanam rek inshallah kaddu allah. bu kaddu bu kàddu sëñ bi wax ne yan alayhi wasallam moko diglé ñu di ko doxee ñun di wax ak ñun ñun ñi di wax ak yeen jaar nañ ci parce que yonent bi moko santane kaddu yonent la dal kaddu yonent mom kenn ko kenn ko di di si Seydi ak Seyna di fi ñu fay dañuy te ñu fi bay bi si kanam kanam suñu xol na depuis dañu kontaan la be xamatuñ lu ñuy wax yalla man dama febron daw man ma doon daan ci base defo na ma jaari lay duma ñëwaat mam Seydou feñu ma ne nga di nga dem ma tax ma ñëw dama gëm mam seydi bëgg bay lay bëgg serif sërif man sërif moo ma yar moo tax fuma dem rek ñom rek laay waxtaanee samay waa kër ay tiijaan lañu ni man dama gëm seyna li mam te bu bu ñu sulé tiawon ma ngi bay jàmmalaay édition ren bi ak yu fi jotta jall lan ban jàng yépp ané bu daaw ak ren yeb ben la yeb ne neex. khalifa xalifa khalifa yeb jaar yoon. yeb jaar yoon macha allah Mamadou Lamine mënuñu ko fe dañ koy baye ak yàlla rek. xana mbekté ak wat ci jangat lu bes ndax kenn du Seydina Limaamu kenn du Seydina Isaa defar na jukko yi defar na ruuy kon ñun dañuy delu rek de gëna yé salat suñu delu waté gëna defaraat suñu bop gëna yaraat gi ndax euh, Seydina Limaamu enseignement la joxe képp ka nga xamante ni yaa ngi doxee ci digalu Seydina Limaamul Mahdiyu doo teggeeku mukk ci def lu dul lu dul dëgg doo wax lu dul dëgg doo do doo fen doo njublan toujours ci njub rek ngay nekk kon ñun dañu gëm ni Seydina Limaamul Mahdiyu mooy Mamadou ñu ngi gëm ni Seydina Isaa Ruuhu Laahi moom mooy Jésus Christ mooy ki nga xamante ne mooy démb mooy dama bëgg képp ki nga xamante ne yaa ngi dox ci kaw suuf nga wuyu si ci woote Seydina Limaamu bii ndax man mii di wax ku weddi woon laa waaye Seydina Limaamu dafa ma woon bopp ak Seydina Issa Rouhou Lahi appelu ren bi ak appel fi jot a jàll nan nan nan nan ngeen ko dundee. dañ ciy gën a dañ ciy gën a gis daal suñu bopp chaque année ñu ngi am ñàngat bu bees at bu jot rek mbooloo mi di gën a yokk at mu jot rek nit ñi di gën a defaru ndaxte enseignement bi muy joxe moy rek li nga xamante ne suñu borom mom la santaane moy top suñu diine top ndigalu suñu borom maytu ay tereem ci ali mamu enseignement bobu lo joxe kon ñun ci njabo tamit ci lañu ñu nekk ci lañuy dox lepp la nga xamante ne ali mamu mu ngi koy santane suba ba ngon jot ñun ñu ngi ci kon ñu ngi gëreum sang yi nga xamante ño fi nekk dañu doli xam-xam dañu doli ci ñu gëna déllu ci suñu borom gëna yaraat njabot gi ci diiné kon alhamdullilah rabbil alamin jëfé sayna jërëjëfe Seydina Limaamu jëfé sayidina isaar Wallaay ak njabotu sëñ Abdoulaye Thiaw yépp nga leen di ñaanal yalla ñu yagg fi té wër lool lañuy ñaan yalla suñu borom waxtan yi amna solo lool li ci sëñ bi wax dal liñ ci jang bari na lool xana ñu gën a gor góorgóorlu rek ta tamit euh, surtout ndaw yi lay waxal quoi nañ bàyyi xel ci luñu fi indi Euh, gis naa ne daje bi euh, parfois déglu bi ni ñu war a dégloo des na daal euh, mbir nag bu la taxee jóg boo ñëwee dañ ciy def fulla ak fayda ñi ngi ñaan yàlla aussi lii yàlla na kay yàlla gën a saxal daal lépp loo xam ne tamit yiw la rek li ñu fi indi daal mooy yiw yiw boobu ñu fi séentu yàlla na fi yàlla def lu gën a kawe suñu njort incha allah waaw. tegtal yu sëñ bi joxe yan jàngat ngeen ci. waaw euh, ci mbir xale yi maanaam muy góor ñi ak jigéen ñi ci comportement bi doy na war lool nañ gën a doolee góoru te xam ne ay jullit lañu am na lu ñu suñ ji dina sant fii nag àdduna la rek mais lépp day jeex dañuy dee te day ëllëg dañ taxaw suñ kanam suñu borom buñ jàpp ne aussi mbir mi fii rek la yem quoi bu ñu foyee suñu bopp moo xam góor la moo xam jigéen la. Euh, téewuñ seen bopp. dañuy foowee seen bopp moom góor ñi jigéen ñi yëpp ah parce que même góor ñi sax danga nga ci gis koo xam boo ne ko soxna mu ne la déedéet teel na teel na boobu te taxul mu téye boppam mi ngi ci li ko neex di di def nu ko neexee soo xee ñoom jàpp nañ ne rek euh, mbir mi daal dañ ko woyofal ba mu ëpp daal nañ jàpp ne ay jullit lañ am na lu ñu suñu diini sant nañ jéem a góorgóorlu tuuti daal ci suñu wàllu jàmm yàlla. waa appel bi moom euh, gis naa ne at bu gis naa ne at mu jot nit ñi dañuy gën a ñëw mbooloo mi gën a takku vraiment lu am solo la daal ñi ngi ñaan yàlla tamit déwén mu di gën a mu gën a mu rawati nii daal te bu ñuy ñëw te nañ ñëw te xam ne xam bala ñuy ñëw daal nañu xam li ñu fi indi ñëwuñu fi rek pour dajee wax nii rek après ku nekk ñibbi am na lu tax ñu jóg nañu bàyyi xel ci loolu am na solo trop daal ñun ñu gën a góor doole gën a góorgóor man seeni fay joon dëkk Wakaam aha sëy naa limaamu macha allah ñun ñëpp ko bëgg ñu ngi koy dunda bobu ba légui at mu jot nañu assister ka aha yalla nañu yalla may yokkute may ñu wér ak la ah xiir ñu si jub gi rek ak ragal yalla gi selal gi nga xamantene mom la woote ah woote na lo xamantene ni ma sha allah bu si ñëpp tanko sa kaw sa kanam rek ndax sa ah. tegtal yu señ bi joxe yan jangat ngeen si jëlee yan jangat lañ si andi gis nañ si lepp gis nañ ci lu bari manam jub gi rek ak ah, ragal yalla selal, mo teunk jamono bu fekke ñepp jub nañu ragal yalla selal. si jamm rek la dund ba ker ba ñoo dee. appelu reen bi ak appel yu si jotta jall jàll. neex ndax yokku rek yokkute rek la toujours day yokku rek sa kaw sa kanam rek toujours appel bi day gëna riche di gëna neex ma sha allah li yëpp amu fi won waaye tay fi tay gis nga lépp ngi dem dem jëm sa kanam ah buñ ci tanko dal ba. keroog yow mal xayaam macha allah lépp dina leer incha allah waaw ah, ndax woote yëpp benn la bi di am wakaam noonu bu Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullahi fil ardi wootee ma